envoyez de l'argent au Sénégal depuis l'Europe et le Royaume-Uni avec TapTapSend. Vos proches reçoivent l'argent directement sur leur compte Wave. C'est rapide et il n'y a pas de frais de retrait. Chez TapTapSend, la sécurité et la rapidité de vos transactions sont notre priorité. Qu'attendez-vous? Effectuez vos transferts maintenant. sa papa taxawu nga ko ci feebar bi responsabilité bi waroon sa papa yëpp gàddu nga ko téye responsabilité bi ba tey yàlla suñu borom def li gën kon nag moom moomoo ñu ngi lay ñaanal yàlla na yéen bi woyof sa waajur bu góor bi wàññeeku yàlla na dee di noflaayam yàlla na ko suñ borom xaare àjjana bu baax a baax a baax a baax vraiment di wax monde làmb am nañ tiis quoi vraiment. ay sa jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen seen leader bi di people 221 di nuyu kilifa diine kilifa day di ñaanaat réew mi Sénégal yàlla na suñu borom doolu jàmm ku ne gis na euh, euh, ñu toog ak champion boo xam euh, ne xam ne moo taxaw muy digganteem ak jamteer mu nekk combat boo xam ne nag man keroog bi ñu ma annoncé général jamteer la jël wax dëgg yàlla képp ko ni jamteer yi mooy bëreeg yow say mbokk duñ nelaw fas yéene a ak moom waxtaan Zia maa ngi lay nuyu. Eh, guy gi maa ngi lay fay ginnaaw wañ sant yàlla julli si yonent bi di gërëm suñuy waajur. di nuyu waa Malika yëmbal benn baraak buun Kër Massar Allouba ñaax montagne babas di nuyu waa ñàgg ñaax Europe Tivaouane Peulh Daaru Cubu di nuyu waa di nuyu waa Jaxaay 1 di nuyu képp kuy bëggee général ak aussi sama ami nekk si diaspora bi ak sama gars yi nekk États-Unis ku ci mel ni Mouhamed suma xarit maa ngi koy nuyu di ko siyaar ku ci mel ni Alassane borom États-Unis maa ngi koy nuyu di ko siyaar képp ku nga xamante ne yaa ngi ci diaspora bi suma grand Ousmane Diop Boston ñoom Modou Kane xam nga ñoom maam daam gars yi mafia mafia Espagne bi tamit xam nga du ma leen fàtte ñoom maam Cheikh Anta. góor yàlla yi jàmbaar yi nekk ci diaspora bi yëpp maa ngi leen di nuyu ak suma rakk Cheikh Soumaré ñoom Aada Soumaré xam nga sama mafia bi daal gars yi nekk ci diaspora bi yëpp maa ngi leen di nuy naan leen général am na komba mhm. loolu laa leen di nuyoo naan na ci ñëpp jàpp ndax aussi combat bi ñu jëm nii soxla nañ ci jàppale bu baax a baax a baax. d'accord dinaa ñëwaat ci combat bi mhm. euh, compétition bi. Euh, tey yàlla sunu borom dogal nga euh, nekk ci maire lutteur. Mhm. Euh, tey daanaka làmb heure buy dem rek. Mhm. teraanga di gën yokk sag bi di gën a yokku. Mhm. te damay wax ni làmb nag loo ci am mérito nga ko ñun ñi dëkk ak yow xam nañ ci dara. tey ndam li nga am ak sag bi nga am. tey naka nga ko dundee. waaw sant yàlla. vraiment ndax nit moom boo nekkee ci benn affaire li ñuy wax rek lu ku yokkul yaa wàññi. Mhm. man yaakaar naa ni dernier moment laa commencé di compétir ndax ren ku ne xam na ne dama am ci ay blessures yu ma nekkoon. Mhm. mais ci dernier moment boobu ma ñëw yàlla suturaal na ma ci ba ma marqué. ci mhm. ay sorties chef de l'état génn compétiraat ba Sénégal di def compétition internationale ñu gis ma xam ne maa ngi ci ñu am ci man yaakaar ba convoqué ma équipe nationale ma dem participer ci yàlla dogal ma porter aussi jëlee fa médaille d'or quoi mu doon mbégte ci ñun ndax aussi bokkoon na suñu rêve bu ñu bëre woon ba bàyyi te doonuñu champion d'Afrique xamaana du ñu neex mais comme yàlla dogal na ñu doon ko rek ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. Mhm. ndax bokk yomboon na nga bokk ci compétition boobu noonu. non yombul yombul ndax li tax yombul mooy pour nga bokk ci faa nga compétir ñu gis yi di ci wane ba pare benn ñaar aussi tamit pour nga bokk ci faaw ñu la yàgg say morom nga wane lu leer la nga participer ci ñu mën la convoqué ndax lit boo lit bi drapeau chef de l'état booy xool moo am moo am ci compétition bi ñu doon def. Mhm. par rapport ak ay mbapat simple yi nii wala ay bëre dóor ak yooyu noonu. duñ ko mhm. tànnee foofu. Mhm. il faut ñu xool ñiy participer ci drapeau chef de ak ñiy compétir bu baax. par rapport ak bi nga jëlee loolu ku ne xam na ne loolu sag la boo xamante ni tey damay wax ni normalement kii di président euh, wala euh, ministre ministre waroon na leen recevoir. Euh, par rapport ak loolu bi ngeen ko jëlee. yan yan yan kado ngeen waaw ah, waaw vraiment ñun de bañ ko jëlee ba léegi ni ñu ko jëlee noonu Sénégal gi yëpp doon ko bàyyi xel noonu lañ ko jëlee ba léegi amaatul benn récompense boo xamante ne toppaat na ci lu dul ku mel ni Eric Favre moo ñu convoqué woon vraiment sargal ñu am ay teraanga yu ñu defal bu loolu weesoo moom gisaatuñ dara doon nañu xaarloo nag naan ñu ministre bi mën nañoo recevoir ak affaire yooyu noonu mais booba tey dégguñu appel gisuñu ko ci communiqué gisuñu ci dara vraiment dégguñ ci dara daal mais nag ñu ngi ciy sant yàlla ñu ngi toog nekk ci suñu bopp. ndax loolu noonu du tax ngeen xaw a euh, xaddi parce que nag wax dëgg yàlla euh, champion d'Afrique ku ko jël am médaille d'or yaakaar naa nga ñëwaat sa dëkk amul dara lu la sargal ndax loolu noonu tey du bokk ci li nga xam ne da leen di découragé loo wala day xaw a delloo sport ginnaaw. ah waaw dinaa dox du du neex ci xool quoi ndax aussi tamit nit ku ci nekk boo sañoon boo génnee porter sa drapeau réew compétir ba yàlla defal la ndam jaaru na nga gis say autorité dëkk recevoir la wala ñu convoqué la xam nga sargal la wan la ne ni kat yow mii kat jàmbaar nga gaynde la mais boobu léegi gisaguñ dara mais aussi tamit mooy loolu noonu. neexuñu mais tamit ñu ngi continuer suñuy compétition ndax ñu nit dafa am lu bëri lu ñu war ci làmb te yaakaar naa ni loolu noonu lu warul woon ñàkk la ci suñu carrière te li war am gëm nañ ni moo ëpp loolu noonu mais comme que jàll def ba koy dégg euh, euh, mm-hmm. sa waar dana ma wax ni grâce à toi tey am mm-hmm. naa ci euh, préfet la ndax su Cher Malika recevoir ma vraiment ma koy lu bu baax. test mhm. bi ma gën a marqué nag mooy dama dem ñu toog ak commissaire. ñu waxtaan ma wan ko trophée bi wan ko médaille bi ñu waxtaan ba pare mu génnee ci kalpem xaalis bu bari jox ma ko quoi vraiment madame la commissaire vraiment maa ngi koy kontaane bu baax a baax a baax ndax nee naa la lii dafa bokk ci nit mhm. lii di alal dafa sax ci xol mhm. képp ku la mën a joxe ku la dàq joxe alal rek seedee ko nit ku baax ndax am na ñoo xamante ne pour ñu génnee seen alal jox ci nit tey ma dem ci ku mel ni commissaire wan ni ko rek ñun ay doomu dëkk bi lañ te yéen ay kilifa dëkk bi mhm. am nañ ndam jaar na ñu ñëw ba ci yéen wan leen li ñu am mu génnee teraanga defal ma ko vraiment loolu maa ngi koy solwee mhm. ñu toogaat benn moment sama waa staff ne dañ may defal sargal ma wax ko ko mhm. mu def délégation bu mag indil ma ko fii woo ñoom commandant gars yi ñëw déplacé ñëw ba sama kër ne vraiment commissaire moo leen yóbbu ñu couvriral ma sama événement ba vraiment macha allah képp kuy suma nit da nga cee kontaan kon maa ngi leen di sant bu a baax baax moom it geste bi mu def ñu ngi koy saluer ndax ñoom ñooy suñuy kilifa. Mhm. kon tey jii bu ñu amee ndam ñëw ba ci ñoom wan leen ne am nañ ndam ñu apprécier ñu. Mhm. dooleel ñu vraiment ñu ngi leen di kontaanee. lenn daal moo ñu ci naqari ndax booba léegi ñu ngi doon xaar gis monsieur le maire mu recevoir ñoog mhm. yooyu mais dégg ñu ko gisuñu ko ku si mel ni Barou Dia lañ dégganteel xam nga waxtaan ak moom mu doon nit ku baax nit ku oyof mais monsieur le maire dégg ko gisaguñu ko defagul benn geste vraiment ñu nit buñ sañoon fi ñuy yeewoo même bu dee benn jël nañ turu dëkk bi am fuñ ko yóbbu ba ñëpp tax ñu koy bàyyi xel jaadu na ñun ñi nga xamante ne ay autorité dëkk bi lañ ñu gëstuñu mhm. ndax kenn mënatuñoo génne ci autorité dëkk bi fii boo duggee YouTube tapé général bu Malika mhm. mooy loolu Malika sax boo ko bindee da ngay ñëw da ngay ñëw boo bindee Malika rek suñ tur day ñëw mhm. kon tey ji jaadu na bu ñu génnee di porter drapeau bi di jaayante di am dara tey bu ñëwee ci dëkk bi jaar na waa dëkk bi génneel ñu sargal ñu njukkal ñu war nañu kat ñun ay doomu dëkk bi lañ mais ba léegi gisuñu benn réaction Mm-hmm. mais nag amul problème nit ku ci nekk ak fi sa xel toll quoi. d'accord aussi tamit Laye Diop ngi koy sant bu baax. Mm-hmm. moom it mention spéciale taxawaayam rafet na ci Malika. loolu yëfam la euh, euh, ma ñëw ci làmb tuuti euh, Balla Gaye am ay kaddu yoo xamante ni yëkkati woon na ko. Uh-huh. jëmale ko ci CNG bi. Mm-hmm. ñu bari ni Balla Gaye kaddu yooyu noonu est-ce que war na ko yëkkati ñenn ci mbëri ni Balla Gaye li mu wax peut-être moom moo ci gën a siiw rek waaye li mu wax ñëpp benn jafe-jafe boobu la ñu dund. naka nga jàngatee kaddu yoo nga xam ne Balla Gaye wax na ko ci CNG. waaw tey jii Balla li nekk ci xolom rek la génne xëy na Balla moo wax nit ñi bàyyi ko xel rek mais bëri na ñu yàgg kaas ak ñu yàgg wax xëy na ñu ko war a bàyyi xel duñ ko bàyyi xel mais am na ci jëmm yoo xam ne yàllaa leen may tur ay kilifa lañ bu ñu waxee rek ñëpp dañ koy bàyyi xel mais tey jii jaadu na kat nit ki bu fekkee da nekk ak say kilifa ñu jiite la nga nekk ci benn mbir gis ni saaboo boo deful lu yoon dañ lay sanctionné di la dagg mais alal boobu ñu lay dagg yow mënagoo xam fan lay jëm ak lan lañ ciy def jaadu na nga toog leerlu ndax alal ba fa lay jëm ndax à chaque instant ak chaque instant da ngay dégg nitu làmb bu feebar te pour man nitu làmb bu dee nitu làmb nga CNG di sa kilifa nga tawat ñu lay ketal di la ñaanal te doo gis benn réaction bu jógee ci CNG. kon loolu du neex ñu bari. te tey jii boo defoon benn infraction CNG mooy njëkk mooy njëkk a jug. mooy njëkk a réagir mooy njëkk a jug taxaw ne diw li mu wax est-ce war na koo wax wala diw li ko li mu def est war na xam nga tey jii Balla Gaye li mu wax noonu hors de làmb la. nekkul ci biir stade nekkul ci biir làmb mais bëri na ba pare moom lu mu ci dund mu wax ko. te vite fait waa CNG dañoo réagir. kon pourquoi pas keneen bu nekkee doomu làmb leneen dal ko feneen. wala mu am benn blessure bu ko dal ci làmb pour pourquoi pas gars yi participer ci dugal ci seen loxo mais loolu doo ko gis. Mhm. léegi ñoom lenn rek lañ lay mën a wax ak yow nga wax wax ju ñaaw bu jëm ci seen kaw wala nga jëf-jëf ju ñaaw ñu woo la pour mën a dal sa kaw mais bu fekkee da am situation wala nga am feebar wala nga am ay décès yooyu noonu doo gis benn réaction. Mhm. pour man loolu noonu warul ndax boo dee kilifa da am noo war a doxee ndax kilifa ça veut tout dire doonee kilifa rek. nit ki da nga koy couvrir ci lépp bu amee bànneex da ko war a couvrir mhm. bu amee safaan tamit da ko war a couvrir mhm. kon nag ñoom soo laalee seen point rek ñu réagir mhm. te pour man affaire yi war na mën a dépasser foofu ndax ñoom ñooy suñuy kilifa man beer bi daa dañuy déggante sama sama sama kilifa la nit ku ma respecté la aussi nit nit nit ku ma jox cër la comprendre nga kon tey jii nii foofu noonu ñu ñu toll ñun nga xamante ne dañ ñu leen di bàyyi xel ci lu bëree bëri bëri ñoom it ñuy bàyyi xel mbëri ci lu bëree bëri foofu noonu ci côté CNG bi ma dégg ci sax ni bi ngeen jëlee seen trophée yaakaar naa ndàmpaay li nga xam ne jox nañ leen ko cinquante mille ak dix ñu bari naan loolu est-ce que c'est champion d'Afrique en tant ki dem doon compétiral Sénégal war nañ ko jox cinquante mille francs ñun joxaguñu ndàmpaay ñun loolu dañ nañu per jom la maanaam ñun journée yu ñu fa def comme tey jii nii ñu jël la guy gi ne la da dem def ji ay interview pendant une semaine journée boo fa def dañ lay jox dix mille ñun loolu lañ ñu defal dañ nañu journée yi ñu def ci compétition bi lañ ñu fay ku nekk dix mille mais génn guñu nañu état moo leen defal lii wala médaille d'or yi ngeen jël lii lañ leen ci jox récompense bi ngeen ci am wala lii ak lii loolu amagul. dégg guñ ko aussi tamit gisaguñ benn membre bu bokk CNG ne ah comme que ay doomu sénégalais lañ compétir nañ am lii nañ leen jukkal defal leen lii loolu amagul. Mm-hmm. vraiment loolu amagul. doxaguñu mm-hmm. dara. Mm-hmm. mais nag ñun ñu ngi sant yàlla ko ndax aussi tamit ñàkkuñu dara. ndax ñu ngi xëy di sagu. di lu te loolu rek pour man mooy li am solo nit ki boo nekkee doomu aadama nekk ci benn mbir di ci jaayante. yàlla di la suturaal rek loolu rek ak sant la quoi. loolu ñoom bu ñu xamee li leen war def ko xayrun bu ñu xamee li leen war tamit defuñu ko xayrun ndax ñun ñu ngi ci suñu bopp. Euh, ma ñëw ci sa combat ak Diam Terry pourquoi nga jël ko. waaw Diam Terry mbër la champion la comprendre nga xam ne ndaanaan la champion la moo tax ñu proposé ma ko mu doon baat ak tontu bañu ma ci dara. mu doon adversaire boo xam ne ni yaakaar naa bi mu gëjee bëre yàgg na yàggul mais képp koo ko wax li mu lay jëkk a wax mooy kooku sama xarit la wala sama mbokk la mm-hmm. ñu jox la ko nga jël ko mm-hmm. bi nga koy jël ndax waxtaanoon nga ceeg say mbokk bañ d'accord wala yaa ko jël say engagement bopp waaw man man maa ko man maa ko jëlal sama bopp li tax ma jëlal ko sama bopp mooy xam naa ni jàmbaar la te samay mbokk ku ma ci waxal du ko bañ ndax xam nañ ne man jàmbaar la te jàmbaar pour sa jàmbaar di gën di continuer faw ngay daj ak ay jàmbaar di ci wane sa bopp. Diam mhm. Terry jàmbaar la bu confirmé champion la ndaanaan la boo xamante ni nit mënatu koo naatable ci làmbu Sénégal kon tey jii man su ma dee ndaanaan gën a bëgg am fu ma yegg ñu proposé ma Diam Terry li ma war rek mooy ma jël ko waaw. tey adversaire bi nga jël est-ce que nga ko. waaw xam naa ko xaw ko. xawuma ko ci benn côté ndax dëkkuñu fanaandoo ñu yeewoo ci làmb aussi tamit xam naa ko ci benn côté ci làmb xam naa ni mbër la xam naa ni champion la xam naa ni ko fonk làmb la loolu xam naa ko ci moom bu weesoo loolu fréquenté wu ma ko xawma ci lu muy dox xaw ma ci lu mu doxul. ñu bari ni Diam Terry risque la ci général. waaw mais àdduna lépp risque la xëy di dem entraînement rek risque la mun nga faa dajeeg loo xamante ne mooy loolu daan naa xëy di dem entraînement di dajeeg ci àll bi yàlla may suturaal maa ngi dem di ñëw léegi géeju Malika neex na léegi heure bu la neex dem fa ndax am nay lamp am lépp jaar naa fa dem di jaar ci biir firaawo yi boo taxawee fii ma taxaw fii lu ñu gisee te loolu amul lu ko gën a doon risque eh. te ñu ngi ci daan dem di dem di ñëw yàlla di ñu suturaal yàlla boobu doon ñu suturaal dem ak bërki dem ba tey jugu fi lépp yi àdduna risque la ndax nit toog na di wax sax dund ci loo xamante ne mooy loolu noonu nit génn na di doxi soxlaam dund ci loo xamante ne mooy loolu risque ça veut dire tey fi adversaire bu neex a daan mais adversaire la boo xam ne ni. Ah. dinañ lii c'est normal mais nga tourné jël jam ceeri ñu bari naan tey général est-ce noonu du danger ci côté carrière am. non du danger ndax. xaaruma pour jël adversaire boo xam ne ñëpp dañ naan général la ko mën bu ko jàppee daan ko loolu yóbbuwuma fenn pour man am na nag ñu yàlla may ñu mën a def loolu mais man bokkuma ci sama début carrière ba fi ma toll musuma def loolu noonu adversaire bu ñu ma jox dañ naan ma tey am nga làmb noonu ma tàmbalee di ci dox ba ba léegi falaat toll tey su ma demee ba mënatuma daan samay morom wala mënatuma xool ni ñii samay naataangoo lañ ma jël leen jëflante ak ñoom kon day jar ma dem xooli leneen ndax damaa bàyyi lépp ndax làmb sacrifié lu bëri ndax làmb mm-hmm. doxuma ci daraay caaxaan ndax làmb sama bopp ndax làmb gérer sama sama sama ndax làmb kon tey su ma ci demee bay am lu ma ciy sóoraale rek vraiment ñi ma couvrir wala ñi sama staff sax ci làmb ñoo ma war a ñëw woo ba ma ñëw ni ma ah ñun kat GM mooy loolu. ndax yaa ngi calculer. mais ci côté taay boo xoolee jam teerit boo xoolee doon na koo xam ne nii daanaka boo koy natt da nga naan moog daa ñoo tolloo ci côté taxawaay. Mm-hmm. Euh, ci côté ci côté gàttaay. Mm-hmm. tey loolu noonu du xaw a indi jafe-jafe tuuti ci côté bëri bi. non amuñu problème boobu man bëri naa ak façon taay bu ci làmb bëri naag ay ndaama bëri ay njool xam nga man loolu jaaxaluma quoi. Mhm. li am solo mooy mbër la champion la ndaanaan la ma nangul ko ko la reste nag moom vraiment man jaaxaluma quoi ndax nit ku ci nekk tey jii nii boo jëm ci dara li nga ci war a def ba am ci dara yow xam nga ko kon nag du ma toog di ci calculer li ko yàlla may ak leneen lu nekk ci moom noono non li nekk ci man laa gëm. ñu bari ne Diam doon adversaire boo xam ne nii mës a mbër te adversaire ñamawut a jàkkaarloo moom di xeex mhm. te général ku ko xam-xam ne combat yi mu ñàkk sax am njaay indi job moo ko xañ mhm. ci côté xeex yaag jam ceeri ñame nga jàkkaarloo moom affronté ko bu baax incha allahu rabbi te xam naa ne dañuy xeex loolu maa ngi ko ciy xaar bu baax yaag jam ceeri dañuy xeex bu baax sax <laughs> ndax li tax jam day laaw de noo day laaw lu ragaluma loolu nay laaw nay dóoree diis loxo yaram benn la foo dóor day saf mhm. su ma gënee diis loxo na gaañ su ma dàqee xeex na ma gaañ su ma ëppee doole na mais li ma war a def sama diggante ak moom dinaa ko def ci kàttanu suñu borom. Mhm. mu nekk adversaire boo xam ne bëreeg moom pression la. Mhm. parce que nee nañ mbëru penc la nee nañ mbëru gox la. Mhm. tey euh, noonu nan ngay waajee combat boobu noonu ci côté préparation. waaw maa ngi koy waaj ak samay mbokk xëy na ñi daan pression la moom ñoom ñoo jàpp ni pression la mais man aw ma daraay pression man mii wax ak yow buñ général jëm ceeri man damay dama moom. waaw yéen ñi ma xamul ak ñi na nekk pression ci ñoom mais ñi ma xam du doon pression ci ñoom tey nii man làmb moom dama koo dama koo tarbiyo te yaakaar naa tarbiyu bi ma tarbiyu làmb permettre na ma waratuma calculer dara ci làmb pour man ndax lépp lu làmb di laaj dox naa ko lépp lu làmb war ci laay dox lépp luy mayandam dama ciy dox lépp lu mbër war a def pour jëm ci kanam suma xëyee ci laay nekk kon nag man yaakaar naa awma problème pour bëreek mbër moo xamante ne dañ naan champion la wala leneen la non mhm. tey combat boobu lan lañ ci mën a xaar ci bëre wala ci xeex. non mën nañ cee xaar lépp ndax tey jii nii boo jëm xare dangay waajal lépp. Mhm. mën ngaa ñëw xeex bi neex nga nga xeex mën ngaa ñëw bëre bi neex ngeen bëre. lu mu laaj rek incha allah ñu ngi koy waajal. Mhm. combat bi fii nga koy pare wala da ngay génn. waaw ñu ngi xool daal mais amaguñ ci lu leer comme dañoo jëm ci làmb joo xam ne amaguñ date bis bu yàlla dogalee ñu am date royal ñu wóor nañu date bi moom la ñuy dinañ jéem a xool nu ñu waajalee mhm. am na solo see naaj bi tàng na da nga war a dem entraînement. Mhm. ma jël sa temps bi man nag maa ko sañ mooy ñëw du la tàggu. non yow moom yaa ko sañ xanaa dem entraînement far force yaakaar naa ni. gëj nañoo sax wax ci média yeeg yooyu noonu quoi. Mm-hmm. ndax am ci ñu nekkoon. Mm-hmm. mais nag vraiment yow ñu ngi lay kontaane ndax tamit nit ku baax nga gis nañ sa liggéey. Mm-hmm. yaa ngi ciy bay sa waar quoi vraiment di kontaane ñëpp aussi tamit di tàllalaat suñu loxo. dëkk bi yëpp. di tàllalaat suñu loxo suñu mbokk yëpp di tàllalaat suñu loxo suñu am di jaam yëpp képp kuy suma nit maa ngi lay yëgal ni man am naa combat combat bu mag kombaa bu rëy

nga ñëw jàpp ci sama gars yi nekk États-Unis ñoom Mohamed ñoom Pa bi sama frère sama xarit maa ngi koy nuyu di ko woo ci làmb ji bu baax a baax a baax a baax ñoom alsan États-Unis xam nga maa ngi leen di woo sama xarit sama sëriñ soñ Omar Diop borom kànnaar bi moom it maa ngi koy woo ci làmb ji bu baax a baax naan ko làmb ji sa làmb la aussi di woo képp koo xamante ne yaa may jàppale maa ngi lay woo ci làmb ji maam Thierno nee na dina jënd benn bloc met soog sama xarit sama waay suma doomu ndey moom moo ma bëggal boppam vraiment kaana bu mag bi the king of the mhm. naan kaana bu mag bi jàmbaar man xam nga ni man jàmbaar day bëgg jàmbaar jàmbaar nga moo tax ma bëgg la te xam naa ne yow xam nga ni man jàmbaar laa dañoo daje esaat mu naa ma Zé nga ngaa war a kon Met Choc jàppal ni am naa combat lamb ci sa lamb la te ki may bëreel dama ko war a lu xeere lu wow koŋu lu dëgër <laughs> këcci kon nag lamb ji mu ngi noonu sa loxo loo ci jàpp doyul Met ah. la yàlla dogal faramaare ni ku ne xam na ne jamono ji maa ngi seen mbër hmm. te dañ maa jox bopp kon nag waali encore une fois ñu ngi lay dalal loxo naan la nit ku baax nga nit ku yaatu nga nit ku mën sa nit nga comme nag lamb ji vraiment ku ne xam na fi ma ci toll maa ngi lay tàllal loxo naan la nga jàpp ci bu baax mbooj nag suma baax suma frère moom it sama grand Talla Diop gis naa taxawaay moom it mention spéciale moog ñoom daa ak mafia bi ànd entraînement sama gars yi tamit comme ni ma koy defee rek ñoom jaal Tafa Soumaré Séri Sona Papa Séri Naar bi ah. gars yi ñu comme dab rek maa leen nuyu ñoom Kéba gis naa seen taxawaay ak gars yi ciy jàppale sama maman mère Nogay nag moom dama naan ko mention spéciale rek ndax gis naa taxawaayam vraiment nit kuy sonn ci man la moom ñoom Aïda Mbène ak ak ñi may jàppale ñëpp sama waa kër tamit aw ma seen fay gis naa niñ ma taxawee ak sama grand frère yi su ma mee combat duñ nelaw ku ci mel ni ñoom Babacar su ma nee Babacar rek ça va tout dire wax naa ñëpp ak sama mbokk taalibe yi gars yi may jàppale daal képp kuy sonn ci man maa ngi lay tàllal loxo naan leen làmb ji seen làmb la na ci ñëpp ñëw jàpp. maa ngi ciy woo ñëpp naan leen ngeen jàpp ci Pape seen maa ngi lay woo ci làmb ji sëñ Ablaye Diop borom xaas làmb ji sal làmb la maa ngi la ciy woo bu baax a baax a baax a baax naan la loo ci jàpp doyul ak sama gaay Paul sama xarit Paul Douanier moom xam na ma xam moom it maa ngi koy woo Pape Matar borom Kër Massar cité Pélitance yow du ma la fàtte. maag yow benn lañ lundi la ak mardi bis doxul suñu diggante. ak waa Pélitance bi yëpp ak Rakam Saari bu di woo ñoom Aada ñoom Drogué ñoom Pafal xam nga gars yi ñoom Nëmba Yàdd xam nga gars yëpp ñoom Norvège di woo gars yëpp ñoom Sébastien mafia bi daal mafia Pélitance bi yëpp maa ngi leen di woo ak sama fils Petit sama tooma bi nekk Kër saar moom it lamb su ma mee lamb moom it mooy loolu noonu maa ngi ko ciy woo woo naa ñëpp daal sama waa koñ sama booy fii ñoom Pambeen xam nga soq dë xam ñoom Baara. Mhm. Tafa taximaan moom it mention spéciale. sama xarit waay maa ngi woo ñëpp daal gars yi naan leen ngeen jàpp ci lamb ji. d'accord ndax lamb ji dama koo soxla ñor. d'accord sant naa ñëpp gërëm ñëpp. d'accord ay tam mu ngi noonu may gërëm nag man ay dem benn nga xam ne wax dëgg yàlla dafa baax bëgg ma doon nit ku baax nit ku ñàkk ki ñaan Ayda Mbène nga xamante ni moom heure bu nekkee place ba. Uh-huh. clients yi dañuy ñëw ambiance bi bari waxtaan bi neex. maire Nogay tamit mention spéciale kon ne xam na ne place ba moom bu fa jugee rek day wéet ndax maire Nogay waroo di jugee ci place bi ndax place bi ñëpp yow la ñuy topp buñ la gisul sax clients yi dañuy bëgg a jënd buñ la gisul duñ taan ñëpp rek gaa yëpp ñi jàpp ci làmb yëpp sant naa leen guy gi di profité ci occasion bi comme léegi léegi laa information Badou moo xam nga ñoom moo vraiment maa ngi leen di jaale suñ papa ji ñu yëg ni wàññeeku léegi léegi léegi léegi léegi di ko jàlle monde làmb bi yëpp naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suñu papa baabu ngoom boobu noonu wàññeeku léegi léegi suñu papa su baa suñu papa baabu ngoom boobu wàññeeku léegi léegi suñu papa ju baax la woon ku bëyoon waaram ci làmb la ku marqué empreinte am ci làmb la bëri na njabootul làmb ñoo xamante ne bu ñu demee ba bëgg làmb moom am na ci part te ku ne xam na ni man dama def lutte simple lutte avec frappe def lutte sans frappe ma gën a wane sama bopp ci lutte sans frappe mais dem na ba tey jii boo duggee île saalum bi boo duggee saalum Fatick li ko wër Fatick ci village yeeg dëkk dëkkaan yeeg yëpp ñuy dund làmb per baabu ngoom da cee bay waaram muy doomu gànjaay nag ñu ngi koy jaale waa gànjaay yëpp di ko jaale ñoom moomoo vraiment ndax suñu papa ju baaxal moomoo moomoo vraiment ku sonnoon ci moom la moomoo nee naa dafa teela a jël responsabilité am ci ay papaam moomoo xale la ñun mën nañ buñ ko magul maguñu man ba may c'est la première fois may dugg ci làmb di gis moomoo di tëgg man damaa tiit man xale bu ndaw bi di diriger tambour major bii nii ñu ne ma doomu doomu baabu ngoom la fekk boobu ñun ñu ngi soog a débuté noonu mu doon xale bu am Pastef doon xale bu am jom moom it ba papaam tawatee ba léegi wanewul tànk ginnaaw wala tànk ñàkk fayda benn yoon kon nag bay na waaram moomoo gis nañ ñi nga taxawoo sa papa taxawu nga ko ci feebar bi responsabilité bi waroon sa papa yëpp gàddu nga ko té responsabilité bi ba tey yàlla suñu borom def li gën kon nag moomoo ñu ngi lay ñaanal yàlla na yéen bi woyof sa waajur bu góor bi wàññeeku yàlla na dee di noflaayam yàlla na ko suñ borom xaare na bu baax a baax a baax a baax vraiment di wax monde làmb am na tiis quoi vraiment ñu ngi koy jaale ñëpp per baabu ngom ku baax la ku mënoon sonn ci nit la vraiment ku doon bégal nit ñi la kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko suñ borom xaare àjjana yi firdawsi ñu ngi koy jaale monde làmb bi yëpp quoi vraiment ndax affaire yi dañoo dab léegi lañ ma wax ma ko vraiment ma ne naa ko waxaale ci émission bi rek ñu ngi koy jaale ñëpp daal vraiment jërëjëf